war a gën a moytu di que la viande saignante yi nga ne day am ay lu mu ñor rek cuisson à point maanaam lu mu ñor parce que bu ñorul rek du mën a rey yu nekk yaram bi du coup mën na sax ko donc yàpp lu mu gën a ñor moo pour et puis pour li war a évité mooy yàpp bu ñorul tuuti wala yàpp bu am tuuti deret wala dara lu mu gën a ñor daal c'est mieux quoi vraiment mën na bañ a ñor nag mais il faut veiller que mu ñor bu baax quoi parce que ñor bi mooy suñu mooy indi wér-gu-yaram ci nit ñi quoi vraiment diwlin bëri moom tout le monde sait que pas bon donc lu rek pour mën a cuire euh, yàpp bi ba mu ñor moom moo moo gën quoi warul ëpp quand même parce que après diwlin bu bëri moom graisse lay yokk rek après quoi non seulement xar bi am graisse boo dinaay doole diwlin bi aussi c'est assez compliqué quoi y a ay répercussions yu après ci du point de vue de sa santé nit qui mën na am ay ay problèmes ndaw quoi donc c'est à éviter quoi nit qui déjà lu ab parce que en fait nit ku ne bokkul quoi am na nit ñoo xam dañuy habitué ou ci yenn aliments yi am na ñoo xam ne nag yaram moo nangul loolu bu ñu ci lekkee lu ndaw rek daf leen indi ay problèmes donc comme genre yooyu bu amee da ngay éviter di ko lekk maanaam boo ci lekkee tout rek c'est bon après nga wut ay fruits pour mun a digérer bu baax pour sa santé moom bañ a lekk tabaski sax pour préserver sa santé moo gën nga lekk ci loo xam ne après ça va créer des problèmes mm. donc boo loo ci lekk moom mu waroon lii moom mu ngi lay indee jafe-jafe nga mos ci tuuti yam foofu moo gën quoi. et aussi yàpp bi bu ñu ko mënee lekk ci digg journée bi moo tax parce que yàpp. yomb la digérer boo ko lekk ci guddi gi rek da lay indi ay problème donc ay midi une heure yooyu heure yooyu boo lekkee ba baax boo paree tamit nga doxoon tuuti reesal avant ngay tëdd nelaw au moins permettre mu mën a digérer bu baax je sais que jus de fruit moom jus de fruit yi moom moo gën ay boisson yi quoi vraiment si boisson moom jus de fruit moo ci gën quoi bon bien vrai que nag je pourrais pas dire je pourrais pas être catégorique parce que bon awma ci trop notion yu bari quoi